leeral say mbir mu leer nañ. ak foo mën nekk. foo mën di féete. ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa. Euh, léegi est-ce que yéen ñooñu ñëpp ngeen bokkoon benn kuréel daan ànd euh, yu mel noonu doon leen boole seen biir ngeen nekkoon ci bay jot di am ay coow ba ba ba tàqali ko est-ce que nii nii diggante bi rafet na yéen ñooñu ñëpp. non diggante bi rafetul diggante bi rafetul de rafetul bu nit génnee àddina nag ñëpp dañ fa daje. dégg nga ñaanal ko def ay ay falaa falaa rek kenn ku ne ñëw feeñ sigil ndigaale ku nekk dem waaye na mu waroon a retaxe ñu nekk benn tey jii dimbalante ba ñëw àndante ba ñëw ànd jàmm yénente jàmm xam ne lii lu ñu dundoon la jeex na nañu rafetal li des amu fi amu fi de moo tax ci boobu loolu tax nag xëy na les sages bi ñu commencé nii Euh, moom tubaarkàlla mu ngi am tànk yu dox yoo xam ne yi ak yi ma fekkee yëpp yëpp danaa la maay ci membre fondateur yi la bokk la waaye saas di mu doxee nii gisuma benn bu nu doxee bu bi mu ni mu taxawee nii ak ni mu départ yi suma gis benn station bu ñu doxee nii waaw. ñoom ñi ci nekk ñëpp euh, kan nga ci ëpp ñoo xamante ni di nga dégganteeg ñoom di ngeen waxtaan lu baree bari ci làmb. ci ñan ci par exemple saas wala wala. ci ñooñu nga xamante ni bokkoon ngeen ci kuréel yi. ñooñu. kenn laa ci dul dégganteel ku ma ci dajal tamit salaamaaleykum maaleykum salaam rek raar la daje parce que xam naa ne man xam nga dafa am jikko. Mm-hmm. xëy na loolu nattu la boo xam ne bii nattu la ci ban mooy su ma gisee da ngaa foo rek neexatoo ma damay maslaa maslaa bi mooy du la tagg duma la xas. Mm-hmm. duma la tagg duma la xas. Mm-hmm. waaye daal salaamaaleykum maaleykum salaam ku nekk dem su ma la déggalee lu baax. su ma la déggalee xew maanaam dara lu diis maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla teggil ko su ma la déggalee lu baax it yàlla yàlla yokk sutura fa laa yem waaye daal am maa yow di massa yow diggante yow dem nii amu ci kenn mu amadi kati jóob sël ak mu Ndafa dégg nga laa ci jégal te ñuy seq te jàmm loolu panel bii moo ñu boolewaat ñu nekkaal da nekk benn di ànd par de jóob ñooñ ci génération boobu ma bëril génération boo xam ne bëri na ak ñoom ñooñu rek waaye ñeneen ñeneen bokk fële ci Manga 2 moom tourné naa paas am moom moom Manga 2 waa këram yëpp Manga 2 lépp lu mu ànd rek tourné naa paas booba moom seqatuma moom dara moom. parce que dama ko ji teraanga boo xam ne bii teraanga booba la ma waroon a mooy ñu formé association kenn du ci bokk may leen da ciy bokk far force. jëli ko këram nag mu ne ma doo bokk ma ne ko danga bokk loolu wax naa la ko ci émission bi. ne ko kenn mënu fee heure tudd làmb te tudd la. di dem këram. bu ba jotee. jabaram maa ngi koy nuyu Thérèse wax dëgg yàlla baax la ma wan. kon baax kooku rek laay wax. dama yónnee ngalax def ci siwo am na sax daan leen boole ci wax sax joxaale sama yaay. defal na ma ko man tamit bu tabaski jotee ma tàgg seet ndawal gu baax daal di ciy jox. daal di jox sama doom ne ma yóbbul ko yóbbul ko. loolu seqoon nañ teraanga kon tey ji maa maa nga de war nañoo mën a dund dund nu rafet woo xam ne ba kenn denc ci morom parce que fii tey saal bi ma toog ni toog na fi ba tey. saalam bee mu tey toog naa ba tey. ngénte naa mu toog si toog fii ñëw fi fekk bi maye naa sama doom mu ñëw toog ci biir jàkka ji ku mel noonu nag yàlla def na war nañoo dund loo xam ne li tey ci alali àddina ah ci àddina bu gàtt bi ak alali àddina nga xam ne ku nekk tey ji léeg-léeg toujours nga romb kër gu jekk gu rafet wala oto bu rafet ñu la borom dee na dégg li ma kon tey jii la waroon naa rafet bi ànd waroon naa ànd rafetuma ak moom ak teraanga ji ma ko ji ak fi mu foo ji ak fi mu ànd ak moom ak xol bi ma am ci moom nag laa wax parce que man dama yéene woon tey ji mu nekk kilifa gu mag goo xam ne kii tey di mën a di doxal lu bare bare bare ci fii ci Dakar surtout Parcelles Assainies gi ñu bokk nii. waxuma pour tari ko wala dara mais parce que mate na ko dégg nga kilifa la fu mu jaar ñëpp xam ne kii kilifa la nangam nangam parce que sport bi ñu doon bokk di ko yëngu champion la ci woon. waaw bien que quatre fois laa dajeeg moom waaye tekkiwul ne maa moom ba béer bi jeexee du ñu ay noonu. waaye man ndekete man maa ko noonu maa jàpp waaye moom damaa noonu. waaw loolu la dund nag moo tax ma ne tourné naa passé complètement mm-hmm. complètement complètement waaw léegi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 mbir ba mu leer nañ. ak foo mën di nekk. foo man di féete. jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa.